فزت بزار في الأزال سيدة la la la dina astakal ko mam jaara mi ma bu sobbali jigéen jëmi yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi wursu sellaa dina stakal ko maam jaara bu sama ta palaxaan jigéen aras moo tiim jigéenu xërnu bi maam jaara wursu sellaay nas takkal ko mas jaara ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil ne yàlla may karim buso yow wa jaara laarime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim iwam wa maam jaara laayareem du jeex jàngal na xarnu bi xaral na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp ambu dikk fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu yaa gorte yaa ami may maam jaara bari gil gi silli cosaan maam jaaratulaay soror ya ca makka ak soror ya ca madina baytil muqaddas ana tuuba minallahi sëbli gi ya tëx ba doom yi wala fi denc ay million te seeni maam mësu ko gis maam jaaratulaay yaa rafetu dudu maam jaara maam jaara maam jaara yaa dis gor te yaa ami may barkeel nga sili cosaan maam jaaratu laay jigéen ñi nañu laaroy laa dina astakal ko maam jaara mi ma gis bu sobbali jigéen jëmi bi wursu sellaa dina astakal ko maam jaara sama te poroxaan jigéen jëttiin jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi maam jaara wursu sell nas takkal ko maam jaara mi ma jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil ne yàlla may karim buso yow wa jaara laarime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu mooy yaay xaadimul xadim bigil ne yàlla may karim iwan wa maam jaara laayareem du jeex jàngal na xarnu bi xaran na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du jafe moo tax ñëpp ambu dikke fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu gorte yaa ami may maam jaara bargil gi silli cosaan maam jaara tulaay soror ya ca makka ak soror ya ca madina baytil ana tuuba minallahi sëb liggéey tëx ba doom yi wala fi denc ay million te seeni maam mësu ko gis maam jaaratulaay fuste besar filasana sayyidatan limosina maryam juraagi